daal leen ak jàmm seen seen biir di Buzz M TV seen acte du jour kii di Assimile Goïta di président bu Mali ak kii di Ibrahima Traoré di président bu Burkina Faso ak kii di Abdourahmane Tiani di président bu Niger pour am seen souveraineté maanaam seen indépendance dogoon nañ seeni relation ak réewu France ci daq ambassadeur yi fa nekkoon ak base militaire yu nekkoon seen réew ya waaye tamit ngir daal di xeex pour am seen souveraineté monétaire maanaam bañ a kenn ci lu jëm ci moné ñooñee créé nañ benn monnaie unique daal di koy dippee le Sahel di ko jëfandikoo seen réew yi waaye tamit pour am li ñu dippee souveraineté militaire ñetti réew yooyee daal di nañu signé ay accord militaire ak réew réewu yi waaye tamit signé nañ ab accord militaire seen diggante ba frontière boo laal ci ñetti pays yooyee beneen frontière pays ba nga laal maanaam ci ñetti pays yooyee koo ci songu ñeneen ñi dañu lay songu ginnaaw li ni mel ñetti pays yooyee fësal nañ ab communiqué daal di xamal àdduna bi que ne dañuy génn ci organisation bi ñu dippee CEDEAO ñoom ne ñetti mbir moom mooy sabab ñu génn ci CEDEAO ci saa si tembare ne bi si jiitu moom mooy que ne en 2012 ba jaadi sii di soog a tàmbale ne bu waa CEDEAO amaloon ab intervention militaire ci saa si jihadistes yi foofee lañ doon jaaree daal di fay yem waaye ñoom ne waa CEDEAO dañoo seetaanoon jihadistes yooyee daal di progresser te ñoom ne ba tey amul benn soutien militaire bu waa CEDEAO di leen di soutenir ci zone yi ñu nekk. ginnaaw loole tamit ñoom ne biir CEDEAO chef d'état yi fa nekk daa am ay puissances étrangères yu nekk seen ginnaaw ne ñooñee ñoo leen di waxloo ñuy wax ñooñee ñoo leen di def loo ñuy def te ñooñee lépp lu ñu leen di waxloo amul benn intérêt pour africain bi. ñoom ne ginnaaw li ni mel ñetteelu mbir bi moom mooy que ne depuis bañ commencé di amal seen révolution seen réew yi waa CEDEAO ay sanctions yu tar lañ leen di teg dem nañ sax ba di leen menacer ne dinañ fa amal ay intervention militaire ñoom ne li mel moom moo sabab ci saa si tembare na xam que ne génn nañ ci organisation bi ñu dippee CEDEAO ginnaaw li ni mel waa UMS Union des magistrats du Sénégal si lu député wàllu yi ak député benn Bokk Yaakaar yi booloo daldi sako ab commission d'enquête parlementaire ngir ñu daldi saytu ndax juge biñu ñu Cheikh Ndiaye ak juge biñu ñu Cheikh Tidiane koulibaly té ñooñee nek ay juge yu nek biir conseil constitutionnel bok ci sept sages yi ba invalider candidature kii di Karim Wade da amone conflit d'intérêt dañ leena a wa wala ci ciow lolé wa IMS daldi nañ ci fësal ab communiqué ci communiqué bobé wa IMS xamal nañ Sénégalais que buñ sukkandiko ci constitution bu Sénégal ci article 92 ak article 93 waaye tamit bu ñu sukkandiko ci loi organique bu conseil supérieur de la magistrature ci article 9 ma ne ben commission d'enquête parlementaire amul doley dal di convoquer ap juge ne da kay déglu bir assemblée nationale. ne budul juge dañ ko japp en flagrant délit te ne si lu jëm ci juge bi dippé Cheikh Ndiaye ak juge bi dippé Cheikh Tidiane Koulibaly seen cas demeewul noonu ne donc bépp juge ci réew mi di Sénégal bu defee lu dëppawul ak yoon ci conseil supérieur de la magistrature foofee la ñuy saytoo loolee mu def daal di faj lënc-lënc yi donc ñoom ne ci réew mi di Sénégal pouvoir yi dañ leen a séparé te muy pouvoir exécutif législatif ak judiciaire te bu nekk daa am spécifiquement nu muy doxee donc ñett ci pouvoir yooyu yëpp ku nekk na yem ci juridiction am ñu daal di éviter liñ dippee ab précédent dangereux ginnaaw li ni mel kii di ay Tall Sall di ministre de la justice ci réew mii di Sénégal ci émission bi ñu dippee point de vie yëkkati woon na foofee ay kàddu daal di koy jëmale ci demande de liberté provisoire bu avocat Bassirou Diomaye Faye yi di sàkku ci réew mii di Sénégal si li ni kii di ay Tall Sall ne malgré kii di Bassirou Diomaye Faye lu mu nekk ci kaso bi loolee teewuloon ñu daal di valider candidature ngir mu bokk ci candidat yu war a bokk ci joŋante élection présidentielle 2024 yi ñuy jëm. kii di Aïssata Tall Sall daal di woyal ne sëgam kii di Bassirou Diomaye Faye candidature am daal dinañ koy valider ci réew mii di Sénégal kon lu xel mën a nangu la bu defee ab demande de liberté provisoire ñu daal di ko koy nangul ngir kookee daal di mën a dem daal di battre campagne waaye nag ne ci réew mii di Sénégal yoon daa organiser ni ñuy defee liñ dippee demande de liberté provisoire. ne loolee moom moo sabab mu ne demande de liberté provisoire bu avocat wu Bassirou Diomaye Faye yi di sàkku dépendrewul ci moom dépendrewul ci administration dépendrewul ci procureur de la république waaye ne ku muy dépendre principalement moom mooy juge bi nga xam ne ne moom moo war a jot demande de liberté provisoire boobee ne kookee la avocat wu président Bassirou Diomaye fay yi war a jéem a convaincre si ñu def ay motifs yi nga xam ne ne dina daldi convaincre koké bam baye ki di Bassirou jomay fay mu daldi génn ci kasso ba daldi amal ab campagne électorale né koké rek mom moy daldi apprécier ndax warna mëna may ki di Bassirou jomay fay liberté provisoire wa wala déet ndax né ci appréciation personnelle koké rek lañuy daldi may wala ñu ñàkk may ki di Bassirou jomay fay ab liberté provisoire ngir mu mëna daldi amal ab campagne électorale ci réew mi di Sénégal ginnaaw li ni mel député wàllu yi maanaam yu PDS yi ginnaaw bu waa UMS fësalee ab communiqué daal di leen di xamal que ne commission d'enquête parlementaire boobee ñuy sàkk biir assemblée nationale loolee du musa antu ci réew mi di Sénégal ñoo ñee di député PDS yi tamit fësalaat nañ ab communiqué daal di xamal waa UMS que ne seen commission d'enquête parlementaire boobee ñuy sàkku biir assemblée nationale du waa UMS ñoom ñoo leen koy teree def ci réew mii di Sénégal député

et tribunaux ci réew mii di Sénégal donc député yi waa PDS ne ñu nekk biir conseil constitutionnel te ñu dippee leen les sept sages ñooñee amuñu statut magistrat ci réew mii di Sénégal duñ ay magistrat waaye ay ancien magistrat la à la retraite ne ñu fa nekk ñëpp ay magistrat à la retraite lañ donc duñ ay magistrat en service waaye ay ancien magistrat lañ bu buñ sukkandikoo ci statut boobee ñooñee am nag kon ñooñee duñ ay membre UMS bu génn di leen jéem a défendre ne ñooñee ay ancien magistrat lañ donc bokkuñ ci biir UMS bi nga xam ne ne moom mooy syndicat wu magistrat yi ñoom ne si li ni mel sukkandiku daal di wax que ne article quatre-vingt-treize bu constitution ñiñ dippee les sept sages ñooñee bokkuñu ci ndax ñooñee bokkuñu ci statut magistrat ci réew mii di Sénégal donc ñooñee buñ defee lu ñu war def ci réew mii di Sénégal député yi am nañ droit daal di ibbi ab commission d'enquête parlementaire daal di saytu seeni jëf ndax luwaa moom moo ko fi maye li lañ leen andiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneeni mbir